Sadio ancien international di jàmbaari fàtte bi ci li nga xam ne mooy équipe nationale Sénégal gars yi di waat match bi ñu gis ah, la nga mooy jàppale Sénégal jàppale Sénégal mooy jàppale drapeau bi et El ko xam-xam ne républicain mhm. euh, tey jii euh, am na ñaari jongante yu mag yu waaj a am. Mhm. muy équipe A bi ak u euh, yi nga xam ne ñoom préparé Jeux olympiques mhm. moo di di leen préparé ñaax leen wax leen li Sénégal di xaar ci ñoom aujourd'hui amul benn compétition tey jii ci àdduna bu ñu war a def muy football. Mhm. bu international wala wala Sénégal bokk ci. ñoom daal ñu ngi ñëw pour ñaax leen wax leen leen ñoom seen gannaaw Sénégalais am seen eh, ndam la ñuy xaar ci ñoom am fii bu am solo. dem Mali tamit amal mu mel ni maanaam Sénégal victoire yi nga xam ne ñu xam ak ay jaloore man jàpp naa ni sa loxo génn ci biir ndax gone yi bu la gisee rek bu sedd bu ñu am mooy ni nga daan def ci terrain bi dee ci terrain bi gënal la lépp est-ce que du loolu. waaw xam nga euh, comme ni may wax rek. waaw war a wax boo xam ne affaire yi du du du métti. te li wax rek ni tamit euh, li gën a am solo moo di euh, ku def lu rëy rek am lu rëy te ku def lu rëy tamit mën waxal tamit ay institution bu nekk euh, bu nekk amicale des internationaux nekk ne tamit Sénégal la tudd a xam ne tey moom moo nekk fii si ni euh, li gën fàttali yéen a ngeeg El Hadj Malick ci jam ñaajo ci entraînement boo xam ne gone yi ñu ngi koy def mu ngi nii ci kaw jëlal leen image si benn par benn baal ma coppatil leen supporters yi nga xam ni ñëw nañ ngeen gis leen noonu supporters yaa ngoogu fu ci nañu defum ndiiraan nag ngir bëgg a dugg si amuñu ci droit ndax Dakar naa tey jii huit kilos la footballkat yi journaliste yi lan may ñu dund fukki minute ak juróom daanaka tey jii ñu ngi bëgg a xaabaabal ndax Kara mi nga xam ni ah, moo nu jiite moom moomu di Kara daa mel ni boo Moussa soriwut ak kuy nelaw ndax gars yi fi mu toll nii ñu ngi coppate seen mbégte image yooyu mooy li wër stade bi baa ngi ma jox leen ko benn par benn geen gis gone yi ah, ci image yoo xam ne maa leen koy filmé la gars yaa baa ngoog ngeen mën ko gis ba tey journaliste yi tamit ñoom daanaka manqué wul rendez bi ñoom ñi nga xam ne ñooy journalistes si ñu ngi nii ngeen gis seen ñu ngi jël li nga xam ne mooy seeni i programme kenn kum ci man di doon danga doxal la war a doxal gardien yaa nga nële ma coppati leen ndànk-ndànk ah, tubaab bi Pape Ousmane Sakho moo nekk ne ci ginnaaw tubaab bu xong bi moom Pape Ousmane Sakho gis ngeen ko ak gàttaay bi waaw ak gàttaay bi ca kaw nii ngeen di seen nag maanaam fële mooy nekk fi nga xam ne daanaka euh, bu fekkente ni am nañ fi ay équipe yoo xam ne invité lañ buñ duggee weer seer man nañ fa nekk noppalu laal fa miskit buñ fa mënee am café Touba sax maam daal di koy lijjanti mooy euh, léeg nga gis di premier étage bu bakkane boo xam ni dana am solo bu baax a baax loole ngeen gis ko image Aladji Malick TV